أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي أمرنا بالقول إياك نعبد والعمل به وإياك نستعين والعمل به mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziara mbokk internet rawat na suñu kër gii di suñu gaal ma macha allah nuyu baax di ziar suñu caméraman bi nga xam suma sëriñ la macha allah euh, nuyu baax di ziara tamit nag euh, mboolem xalif généraux dëkk bi yëpp nag macha allah di leen wàcc seen wàcciwaay macha allah waaye di am mbégte ak kontaan di soit ak yéen suñu émission ma macha allah ngeen am muy hadis di jour macha allah ci kër gii di suñu gaal 24 ngeen ci àndal seen mbokk Habib Socé. te na mbokk yi dafa am loo xam ne moom la alquran indi woon rek ci su ci euh, pénc mi pour ñu waxtaan ci macha allahu gannaaw bu ñu demee ba gis loo xam ne euh, mu ëlëm àdduna bi muy mbas mi nga xam ne yàgg na fi lool macha allah yàgg na fi lool macha allah waaw waaye yal na ko fi yàlla jëlee te musal ñu si ñun ñëpp ñu ko am ñëpp yal yàlla saafara leen yal yàlla may leen wér yaa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mennum yàlla dong moo ko fi mën a jëlee waaw keneen mënu ko fi jëlee ku dul moom waaw léegi borom subhanahu wa taala daf ñu waxoon ci alquran euh, ci fatihatul kitab baad audu billahi min alsheitan rajim bismillahi rahmani rahim iyaka naabudu wa iyaka nastainu waaw iyaka wa iyaka nastainu waaw mu gannaaw bu ñu ko waxee ne ko ñu ngi lay sant gannaaw bu ñu ko sante waaye gannaaw bu ñu ko nangulee mu nekk suñu borom ñun ñëpp ñu ne ko yow dong nag yow lañu la ñuy jaamu amuñ keneen ku ñuy jaamu ku dul yow iyyaka na'budu yow rek lañuy ñuy jaamu waaye biñ ne ko yow kese lañuy ñuy jaamu yonent bi sallallahu alayhi ñëw nag gindi ñu si biir jaamu googu suñu wan ñu fu ñu teg suñu tànk macha allahu taala mu ne ñi balaa ngeen ne jaamu yàlla dem leen ngeen wut xam-xam ba xam nu ñuy jaamu yàlla waaye ba ëllëg bu ngeen jaamu yàlla ba mbir xew ngeen xam mbir moomu nan lay andi ak jaamu yàlla gi waaye mbir moomu nan lay andi ak societé bi macha allahu taala waaw aha islam bàyyiwul lenn bàyyiwul lenn moo tax salaa waxoon ne wa rubba jaahili wa rubba aabidin jaahilin waaw wa jaahilin bari na lool ku xam ne mi ngi jaamu yàlla te li muy def xamu ci lenn macha allahu taala mu ne kooku nag faxdaru na ngeen ko moytu waaw faxdaru na ngeen ko moytu waaw faxdarul jaahili abidi macha allah wala nga faxdarul jaahili obaad macha allah taala ki nga xam ne mi ngi jaamu yàlla waaye li muy def xamu ci lenn mu ne moytu leen ko waaw parce que kooku fitna ci fitna la ci biir fitna yi waaw waaye borom subhaanahu li ñu tax a jóg mooy bi mu ñu waxee loolu ñu ne iyyaka na'budu d'accord nañ ñu ngi jaamu yàlla yow kas la ñu jaamu yaa waaye nag mu ne des na leneen bu mbir xewee lu mel ni coronavirus lu demee noonu bu leen ci sukkandiku ci kenn mais yaakaar leen ma ci man mii nga xam ne man dongumaa maa ci man lenn waaw man kase maa ci man leen ñu ne ko kon nag wa iyyaka nasta'in ñun yow dong la ñuy dimbandikoo yow leen yaakaar pour nga teggil ñu corona bi yow lañ yaakaar nga indi ñu saafara ci corona bi masha allah taala waaw li ko mën a saafara li ko mën a jëlee mennum yow dong yow la masha allah mhm. waaye bi loolu amee nag ah ñu ne léegi kon war nañu jéem a trouver war nañu jéem a xelaat nu ñuy def ba yàlla weñ yenk wàl ñi garab bu xam ne moo mën a saafara li nga xam mooy coronavirus borom subhaana taala ne d'accord parce que doomu aadama bu nekk war nga jéem a lijjanti euh, macha allah jéem a sabablu ba yàlla fekkale ci sabablu boobu macha allah waaw waaye bi ñuy sabablu nag dafa am lu ñu alquran digaloon ci biir sabablu gi mooy in jaakum fasiqum bi naba in fa tabayyanu an tusiba qawm bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin waaw nee na lépp lu leen andil ab jullit warul nayif jullit waruloo nayif waaw war nga fexe ba lépp nga jéem a gëstu xam lii fan la jóge waaw est-ce que lii lu lu ñu war a laal lu ñu war a jëfandikoo la wala lu ñu warta jëfandikoo la waaw mu tegee ci ay argument yu leer nañ ñi parce que borom subhanahu taala dafa bind doomu aadama def ko mu nekk li mu gën a bëgg waaw bëgg doomu aadama bi di sàmm boppam di sàmm bakkanam waaye di sàmm tamit àq ñi nga xam ñoom la nekkal waaw mbokk yi lu mat a bàyyi xel la nag waaw rawatina ñi nga xam ñoo ñu jiite ñu ngi leen di fàttali loolu ne borom subhaanahu wa taala dafa waxoon ne buñ leen joxee ti mbir pour ngeen jiite ko na ngeen fexe ba lépp lu ngeen tegal nit ñi na tegu ci euh, na tegu ci yoon macha allah waaw waaye bu leen def lu ñëw ngeen jox ko seen askan ba askan bi da ci loru loolu du yoon macha allah taala borom subhaanahu wa taala neen loolu nañ ko moytu nañu ko moytu ana lan mooy adilla bi ci loolu qawlu sallallahu alayhi wa sallam ne na wa rubba aalimun fajir wa rubba aalimin fajir nee na bari na lool borom xam-xam bu xam ne macha allah jikkoom dara baaxu ca waaw nee na bari na lool borom xam-xam bu xam ne jikkoom lenn baaxu ca laa wax waaw léegi nag loolu dafa yaatu. mën a nekk boroom xam-xam bu nekk ci wàllu diine ji boroom xam-xam bi nga xam ne di wax ci wàllum diine bu nekkee xam-xamam mi ngi koy euh, macha allahu euh, mi ngi koy mi ngi koy modifier di ci wax lu xam ne pour lu neex nit la ba bàyyi lu neex yàlla nee na boobaa kooku nañ ko moytu parce que kooku tamit macha allahu wa rubba aalimin fajir waaw kon bu mbir xewee bul topp sa poos ba bañ waxal li nga xam ne mooy li yàlla bëgg waaye li nga xam moo arrange population bi waaw waaye wa rubba aalimin fajir ba léegi da gis ni boroom xam-xam bi nga xam ne at tabib la kooku maanaam benn médecin la kooku tamit bu nekkee jikkoom dafa xaw a di baax wala jikkoom baaxul kooku dafa matam moytu te mbokk yi nekkul médecin yëpp la seen jikko baax bari na médecin boo xam jikkoom baax na waaye am na ku nekk si ginnaaw force ko defloo ko mbir loolu dafa jara sayt dafa jara leer waaye in jaakum faasiqun bi naba'in fa tabayyanu mooy taxaw foofu waaw il faut ñu leerlu li nga xam moom la ñu indil ban liqaax la ñu indil maanaam ban comprimé lañu ñu indil ndax lii lu mat lu mën a euh, euh, lu nit ñi mën a utiliser la waaw wala déet waaw waaw wala déet ñëwoon na fi bi mu ñëwee dem na ba wàññeeku te loolu nga xam ne mooy li xaax boobu yegg siwuloon maanaam euh, euh, comprimé bu ngeen baal ma comprimé boobu yegg seeguloon liñ doon utiliser ba loolu wàññeeku mi ngi fi mbokki nañ ko utiliser bàyyi ba nit ñi saytu lee ba lee leer nañ ba ñu xam ne wéer na ñu soog ko utiliser soog ko jox suñu suñu suñu askan waaye maa ngi ñaan ñuy jiite bu nañu fexe ba buñ ñu ko andil parce que salaa sam nee na fahdaru aalimul fajir fahdaru aalimul fajir képp ko xam ne borom xam-xam la bu jikkoom baaxul na ngeen ko moytandiku nan la ñu moytu borom xam-xam bu jikkoom baaxul mooy nañu fexe ba lu ñu indil ñu gëstu ko ñu xool ko waaw waaye lu jógee fële rek nga ne baax na est ce que ñoom ña la ko jox ñu ngi koy utiliser est ce que ñoom bi ñu ko utiliser gis nañ ci lu baax mbokki lu mat a seetlu la in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tafila bila asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu